tey comme ni ñu ko waxee dañuy jóg pour seeti arrêt yi arrêt taximan arrêt Jakarta wan ni rek yéen euh, vous êtes des citoyens d'égale dignité donc nekk ci dëkk bi yor seeni activité di ci liggéey comme ni nga ko waxee man Jakarta yi dama leen a fonk ndax gëm-gëm bi ñu am mënoon ngeen def leneen parce que xam na ni dëkk bi metti liggéey amatul kenn amatul foo xamante yaa ngi fay xëy dem wuti liggéey donc loolu vraiment dañ leen ci félicité mu nekk fierté su ñun vraiment ñëw xool leen waxtaan ak yéen saafonte ak yéen si yéene bi nga xamante ni bés bu ñu jëlee maire yi noonu la leen di accompagner ñu gis également cofeel yi nga xamante ne am am ngeen gisu ñun parce que du tey li yàgg na euh, sama responsable yi ñëw nañ fi waxtaan ak yéen vraiment ngeen adhéré ci vision bi adhéré ce projet tel est la yàlla dogal ñu ñëw fi vraiment cette si leen waxtaan ak yéen ne leen kat ñun li nga xamante ni tey euh, moo ñu maître mooy mettre les Thiessois dans de très bonnes conditions des conditions de travail mais également des meilleures conditions de vie ku gis s'en vraiment vous êtes très organisé organisation boobu la ñu bëgg mu formel ndax si suñu programme bëgg nañ créer des mutuelles de santé pour ñi nga xamante ni amuñu IPM parce que yéen amu leen garantie IPM amu leen garantie retraite te seen liggéey bi ngeen am dafa nekk seen sutur war nañ leen utal fonds de garantie yoo xamante ni bu ngeen feebaree bi ngeen mën a dem faj bu ngeen demee ba kenn mënatul dawal Jakarta ñu wutal ko benn fond boo xam ni si mën a def leneen donc loolu vraiment bokk na si programme bi nga xamante ni yéene nañ leen pour accompagner leen maire bi nag bés bu ñu ko jëlee day nekk une communication direct avec la population projet bu ngeen mënti am même bu fekkee romb na suñu domaine de compétence dinañ leen si accompagner pour que ngeen mën a réaliser seen projet yooyu parce que loolu mooy tax dëkk bi dox moi je veux être un maire

parce que mënoon ngeen def leneen mais vraiment dañ leen di félicité xam ni yéen suñuy naw la ngeen dañ leen war a jàppale dañ leen war a dooleel te dooleel boobu yëpp mooy ñu àndandoo liggéey Thiès pour que nag élection yi ñu jëm ñu mën koo gagné commencé liggéey parce que ñun nous sommes des hommes d'action on communique dans l'action et Thiès dañu bëgg mu changer te xam naa bu ñu àndee ak yéen yéen association Jakartaman wax naa ko sànq taximaan zone yi ngeen di nekk seen arrêt yi war nañ leen ci mën a defal ay commodité soit benn toilette mobile bu ko defee bu ngeen ñëwatee di ngeen am fu ngeen toog fu ngeen jëfandu fu ngeen jàppee fu ngeen di jullee loolu bokk na si suñu yéene arrêt bu nekk di jéem a xool lan lañ fay aménagé benn jàkka bu ndaw ak benn toilette boo xamante ni toilette mobile la boo xamante ni dañ ko mën a installé donc mën nañ ko yéene dañ leen ko te incha allah dinañ si taxaw bu baax a baax ñu ngi leen di sant bu baax di nga xamante ñoo ne seen gannaaw di leen accompagner mais également di leen jox ay conseils papa ñu leen di sant bu baax di leen gërëm parce que ndaw moom bu bëggee am fu jëm day ànd ak mag parce mag lépp yàlla da ko bénir donc merci beaucoup jërëjëf